judd na ci déclaration de politique générale bi man jógoon bu Sénégal di Ousmane Sonko jàppale ne Thierno Bocoum daanay àddu eh, jëmale ci mbir mi eh, ni ki ci suba janoom ak taskatu xibaar yi jàpp ne daal eh, taxawaay limaan jógoon bi di Ousmane Sonko nag ñeel ak waxtaan wi nga xam ne war na ko séq ak waa pencum ndawi réew ma ci am daal du dëgg du yoon duppee ko ab coup d'état institutionnel moom Thierno Bocoum mi nga xam ne nee na daal li nga xam ne rek moom la Ousmane Sonko nag di def ñeel nekkut luy dimbali eh, seen ak eh, nguur addu jëmale ci wàllu njàng meek njàngale mi ni ki tey ji talaata ji la ndongo yi tàmbale eh, examen bi di baccalauréat ci ndakaaru ak itam ci ni gox mbire daal na mu tëddee jaar na yoon jàppale ne nag fi nga xam ne rek moo ci diwaanu Kolda doon taw ci su Petersen foofee nag mairie bu Dakar Plateau nee na daal fasinitul deltu ginnaaw benn yoon nag ci li nga xam ne rek ci la daal di nekk ci jamono ji nga xam ne commerçant ngi ñoom ñu ngi def seen kéemtulaay kattan ngir jaay seen ay bagages lu wër nag rond point ku ci nekk daal ca ñoom ña ngay xool naka la ñuy def bu mën a jaay seen ay marchandise daan ca teewlu reportage bu euh, jëm mbay addu itam jëmale ci maison de la presse ni ki ci suba sàmm bi ak yi daal dinay toog ca rek la ñu ko tabb jàppale na nag moom taskatu xibaar yi nga xam ne fi ne moo jiite maison de la presse ne na daal nee na def kémtu lay kàttanam ba ñuy lëngu ci wàllum tasum xibaar ñëpp daal gis seen bopp ci liggéey wi waaye daam nee na liggéey wi lépp daan na ko jaarale yoon mu set wet wecc du am benn gàkk-gàkk mbokk yi ponk yi moo gën a fees boo leen taax loo ñëw a génn ci atal gi jaajëfal leen bu baax a baax ci teewlu bi ànd beeg 7TV wàllum politique lañ ko ubbee Thierno Bocoum ni ki ju suba janoon ak taskatu xibaar yi euh, dikk ci coow li nga xam ne jug na ci déclaration de politique général bi man jógoon bu Sénégal di Ousmane Sonko euh, jàpp na daal taxawaay bi nga xam ne rek nekkee na ko nag du euh, dëgg du yoon moom mais nag la nga xam ne rek moom la daal di taxaw nee ne daal la nekk coow yu nekk seen diggante. ak waa penc ndawi réew ma mën nañ ko daal di lijjanti waa daal Ousmane Sonko moom dafa war a dem rek taxaw waxtaan ak ñoom. ci génnam bu njëkk ginnaaw bi nga xamee ne fal nañ régime bu bees kii di na Thierno Bocoum deselul dara nguur ku bees gi moom nag ay critique am jëm ci kii di Ousmane Sonko bi ci njëkk ñeel lu jëm ci wàllum déclaration de politique générale. di nga constitution article 55 waxul rek na def déclaration de politique générale dafa wax na ko def. devant l'Assemblée nationale bés bu ko defee en dehors de l'Assemblée nationale tuddee ko déclaration de politique générale ñu constater un coup d'état civil et on considérera qu'il n'est plus le premier ministre du Sénégal respectewul institution à travers son comportement respectewul les Sénégalais. naka noonu muy ñawlu itam génn bi nga xam ne kii di Ousmane Sonko génn na ko jëm ci déguerpissement yi nga xam ne yenn ci ay mairie ñu ngi koy amal. premier ministre mën a bind moom. ñëpp di ko dégg mu ne boobu ba léegi ñu ngi di gouvernement bi mu ngi dégg ñu ngi jële ay nit si di def ay déguerpissement gouvernement bi la wax de te xamul na ne premier ministre de l'intérieur am moo ko sabab y a pas de coordination y te moom premier ministre mooy la moom moo jiite ministre yi moom moo war a créer loolu moo tax ñu laaj ko plan d'action gouvernementale ku amul plan d'action gouvernementale si lan nga war a mën a pare Thierno Bocoum fàttewut itam bor bi nga xam ne nguur gi ñu ngi koy wéy di ko contracté donte sax ñu ngi ko doon ŋaññ ci jamono ji weesu waxuñu la bu leb dañ la ne pourquoi eurobond yow tontu woo pourquoi eurobond nga ne non dañ ma wax naa leb tey fii may wax ak ñeem lu ñu lebagum si ñetti weer yi defar na TER defar na BRT nga boole leen quand on mille cent 1150 milliards am nga si TER am si BRT mu mel ni kon kii di njiital mouvement bu agir dafa dellu si wat ci bépp jéego bi nga xam ne nguur gu bees gi ñu ngi koy amal moom nag mu bokk léegi ci kujje gi di fësal taxawaayam di leeral ne amu ci dellu ginnaaw. ba dañuy des ak Thierno Bocoum ndax daan ne addu jëmale ci secteur privé bi jàpp ne daal dañ leen a war a dooleel waaye li nga xam ne moom la nguur gu yees gi nekkee jamono ji daal bu ñu co jukkuut mën nañu tàbb ci ab nguuta mais tey ñoom politique bu ñu am dafa nar a dërmeer le secteur mooy dindi subvention yi naree bloqué prix yi parce que léegi loolu moo leen loolu lañu la ñu nekkee da ngay bloqué par force suñ ko naree def ñooñu mun nañoo tëj te su boobaa on va perdre des emplois et on va désagréger le secteur privé dama leen di faral di wax ne la population active au Sénégal l'écrasante majorité est dans l'informel ñu góor lu nekk dans le formel ñu néew lañ dañ leen war a appuyer dañ leen war a pousser mais ñii il sont en train de mettre la pression fiscale si ñoom lu mooy wàllum politique dañuy àddu jëmale ci njàng beek njàngale mi te talaata ñaari fan ci weeru sulet ndongo ci lañ tàmbali baccalauréat jàppale ne toll nañ ci xayma téeméer rek juróom fukk ak juróom-ñetti junni toftal ñetti téeméer ak fukk ak juróom ay ndongo yu ko tàmbali daanaka ñi ki tey jile jàppale ne ca centre bu Sacré Cœur foofee nag ci juróom téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett ci ay ndongo ñaar fukk ak ñeenti nag ñoom daanaka ñëwuñu rek amal seen examen boobee centre am ñaari jury jàppale daal bu ñu sukkandikoo ci njiit la euh, daanaka examen ya daat na jaar ci anam gu mucc ayib ànd ci ak Mamadou Konté ci bés bi ñuy amal bac bu atum 2024 ci centre d'examen bu lekkool Sacré-Cœur gannaaw juróom-ñett waxtu ci suba ñu daal di jox candidat yi seeni épreuve daanaka nu tàmbalee tàmbale nañ si dal ak si jàmm parce épreuve yi commencé na à temps en tout cas daal depuis bu ñu tàmbalee épreuve ba léegi amuñu yenn jafe-jafe ci bileb centre ñaari jury ñoo fa ne mu di jury 1380. quatre sëriñam noo nekk ci jury bi te effectif bi euh, mi ngi ci euh, ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar mais am na juróom ñeent ñu absenté. ak jury 1381. donc sama jury bi am na ñetti série série S1 euh, série S1A ak série s Euh, maanaam am naa ci candidats yi trois cent soixante seize candidats euh, si si série yooyu. file jël nañu matuwaay yëpp ngir candidats yi mën a amal seen l'examen nu mu waree. buñ buggee duggee si saa euh, maanaam preuve yi amul benn problème te étudiants yi ñu élèves yi tamit ñoo ñu wax ni ki am nañu benn problème te tamit gis nañu surveillants yi ñëw nañu. waaw teewlu ji. dans l'ensemble ñëpp euh, amul benn jàmbat kenn rek moom moo newoon au début yaramam dafa xawoon na kii mais après nee nañu dina mën a continuer quoi. gannaaw juróom-ñeenti waxtu ci suba ba tey mën nañoo gis benn candidat ci ëttu lekkool bi ñu koy woowee place Canada. pour série S yi euh, tàmbali nañu épreuve science physique et pour série L yi épreuve philosophie quoi philosophie français ak philosophie arabe. ci ab dal mën nañoo am lépp. mu di ay kàddu père André Coindre te ñu taf ko ci lekkool bu Sacré-Cœur ba tax na candidat yi war cee bàyyi xel bu baax ngir seeni l'examen bu baccalauréat bu atum 2024 ci diwaanu Louga foofu itam la ëpp juróom benn junni ci ay ndongo tàmbale nañ baccalauréat gi niki tey jilee téeméer boo jël juróom fukki ak juróom-ñeent tombal ñaar fukk ak juróom eh, ay jigéen la daal di nemmeeku daanaka lim ko yokku buñ ko méngalee ak atum 2023 eh, toll ci ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar waaye itam gis nañu ne seen littérature yi daal ñoo ca gën a yokku ndax ci xayma dee tollu ci téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi ak juróom benn eh, tombal juróom-ñaar fukk ak ñeent ñu bindu waaye buñ sukkandikoo ci gouverneur wa nee na daal lépp jaar na yoon góor a lu toll ci juróom benn ak juróom téeméer ak fanweer ak ñaar ñooy def bac fii si diwaanu Louga ci boobu lim nag liñ ci nemmeeku rek moo di série littéraire yi ñoo daal di ëpp li nga xam ne mooy série scientifique yi wante nag buñ ko méngalee ci at mi nu génn effectif bi dafa yokk ci lu toll ci 237 candidats lépp lu aju ci organisation wu examen yi benn jafe-jafe nemmeeku wuñ ko ci lu aju ci wàllu kaaraange fépp fu ñu jaar gis nañ ne dispositif bi teew na lu aju ci jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñooy def surveillance bi également teew nañ élèves yi tamit teew nañ naam am na yenn nemmeeku yi nga xam ne ñenn ci ñi teew ci délégation bi seetlu nañ ko waaye nekkul loo xam ne am na gàllankoor bu mu indi ci li aju ci organisation bi. ngir jàppale candidat yi def bac. waaye tamit gëna a ñogal seenum nekkin dinañ leen jox ay jumtukaay yi loo xam ni gouverneur bi da koy rafetlu. yenn centres yi dañu am ay élèves yoo xam ne dañuy jóge ci ay gox yu xaw a sori du ñu mën di ñibbi di ñëwaat ba ci biir loolu am ay mécènes yuñ ci àndal dal leen waajalal li nga xam ne mooy seen restauration nga xam ne dinañ mën a lekk sur place mën a noppalu delluwaat ci centre yi continuer seen examen kon ñu ciy gërëm ñëpp di ci sant ñëpp. liñ ci mën a nemmeeku rek moo di di fii ci Louga lu toll ci juróom benn junni élèves téeméer ak fanweer ak ñaar ñooy def bac fii ci diwaanu Louga wante tamit eh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci série littéraire yi ñoo daal di ëpp ñi nga xam ne ñooy def série scientifique yi laneen lu su nemmeeku moo di effectivement buñ ko méngaleeg année bu nu génn ci diwaanu Ziguinchor fu fee nekk inspecteur d'académie ba daal ne sol dàllam dem ci centre xool mbir yéen a mu tëddee waaye daal moom Cheikh Faye daal ne rafetlu bu baax liggéey wi nga xam ne chef de centre yi daal nañu koy fësal ci gox googee ak itam digle yi nga xam ne daanaka tegoon nañ ko ci seen ab ndodd te nag lépp matale nañ ko ci xayma lu ëpp fukki junni ak juróom-benn téeméer rek ñeent fukk ak benn ci ay kandidaa ñoo daal di bindu waaye nag lu lu ñu xaajale leen ci fanweeri centre ak ñett di rafetlu anam yi nga xamante ne ñu ngi koy amal fii euh, examen bi euh, parce que ñu ngi gis ne euh, recommandation yi ñu defoon ci ndaje yi ñu amaloon pour préparer examen bi. Euh, chef de centre yi sàmmwante nañu ak euh, recommandation yooyu lépp lu xeetoo ci étanchéité bi ba xam ndax euh, xool fexe ba salle de classe yi duñ senn fexe ba salle de classe yi bu ci nekk am courant parce que ci nawet lañ nekk te suy taw da nga war a tëj fenêtre yi su boobaa dafa laaj ñu nga am courant pour xale yi mun a gis fi ñuy bind loolu yëpp gis nañ ne recomm matuwaay yooyu yëpp matale na lépp yemb na côté boobu noonu di koy rafetlu bu baax di profito di jaajëfal bu baax chef de centre yi nga xamante ne ñoom ñoo euh, ñoom la ñu sasoon wàllu woowu noonu. Euh, candidats yi ñu ngi ci dix mille six cent quarante di euh, fukki fukki junne ak juróom-benn téeméer ak ñeent fukk ak ak benn ñu répartir leen ci trente trois centres muy fanweeri centre ak ñett. yoo xamante ne benn centre bi centre secondaire la muy centre bu Kujube lépp ci ay fan fanweeri jury ak juróom-ñett boo xamante ne benn jury bi Euh, jury secondaire la itam mooy jury bu centre bu lycée bu bu Kudiobé des ci diwaanu Casamance Jokolda foofu itam ndongo yi tàmbali nañ baccalauréat gi niki tey jii donte ci suba nag am na taw ca amoon waaye terewul daal yi fi nag jaar yoon du ëpp juróomi junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay ndongo ñoo ci daal di sëgg ñaari junni ak juróom-benn téeméer toftal benn ñoom nag ay jigéen lañu ci xayma gi nga xam ne daanaka wane nañ ko waaye bu sukkandikoo ci ndongo yu bari daal épreuve littéraire yi nga xam ne tàmbali nañ ko ci suba philosophie neneen daal mbir yi nag taxu koo demee noonu. ñu daal di jaaxle. dëggantaan sujet yu ñu leen proposé nekkul luñ doon xaar ay candidat ci baccalauréat général littéraire yi ñoom ci philosophie lañ doon composé. pas bon xawoon naa tane. ça veut mu mel ni kon am na lu ci jafe. sa euh, dépend. ça dépend ci ni ma révisé. révisé. élèves ñu bëri dañoo xaaroon woon état et liberté mais en réalité c'est pas ça qui est sorti euh, am nañu leçon comme. comme war nañu préparer lépp leçon yëpp waruñu xaar benn leçon ou bien leçon. ñetti sujet lañ leen proposé ñu war ci tànn benn ñaari sujet dissertation ak benn commentaire mooy ci lu ñu war a xóotal seen xalaat. ci filo daal kenn mënul am assurance ci 100 pour cent ñun daal def nañu lu ñu ci bile saal ay scientifique ñoo fay composé. épreuve science physique mooy sujet bu njëkk ci ñi di def série S1 ak s waaw xaw naa te ne jafe-jafe biñ ci am rek mooy temps bi épreuve bi dafa gudd te waxtu bi dafa tuuti kon mënuñu pare. examen bu baccalauréat bii nag daal di wute ak yu jàll li ko waral mooy taw bi waaye ci anam yi sax la autorité administrative yi daal di amal ab tournée ci centre d'examen yu ci commune bu Kolda. kenn euh, waxaguñu en tout cas que ne problème am na moo ngi taw nag te taw moom ku gis xam ne peut-être dina andi ay gàllankoor yu ndaw mais terewul nit ñi ñoo ngi ci saal yi euh, élèves yi ñoo ngi composé euh, jury yi aussi ñoo ngi assurer également examen bi dans les meilleures conditions. am na nag taw xaj na ñi yaakaaroon nañ ko ñii yaakaaruñ ko ñëw na mais fekkoon na ñu jël suñuy matuwaay. pour que taw bi bu ñëwee aussi du nekk benn gàllankoor ci déroulement normalu épreuve yi. baccalauréat 2024 Kolda daal di présenté 5428 candidats 2601 yi muy ay jigéen luñ ci seetlu mooy candidat libre yi ak candidat yu jógee ko ci privé bi daanaka tolloo nañu ak public bi 45 virgule 36 pour cent mooy seen pourcentage ci effectif candidat yu ñu présenté ci région bu Kolda. kuréel gi ëmb ndongo yi nga xam ne dañoo jàng ba noppi yor seen i lijaasa waaye ñu xëy doon nañu amal seen ak métitlu ci yoonu office bu BAC ñoom nag daanaka daan nañuy xupp nguur gi ak seen i doxalin jàpp ne daal war nañu xoolaat anam yi nga xam ne ci la ñuy jëlee nit yi ci biir administration ñu daal di koy xool waaye tam wàllum concours yi daal nee nañu am nañ lu bare bari luñ te war la joyanti. il faut que l'État recrute et il ne faut euh, et nous ne nous contenterons pas il faut que l'État recrute mais qu'il faut qu'il faut que l'État veille à ce les conditions de recrutement soient respectées, parce que nous en 2023, nous avions déposé une plainte à l'OFNAC contre la dernière liste de recrutement à la la Commission nationale de recensement des agents de l'État. Nous y avons remarqué euh, beaucoup comme ça a été le cas pour les listes précédentes, et donc nous incitons les nouvelles à veiller à ce que les recrutements se fassent selon les critères de njiital bokk moomeel bu Dakar Plateau mu ngi wéyal nag di amal ay euh, opération désencombrement ca marché bu Petersen loole nag terewul benn yoon marchand ambulant yi nee nañu daal na lay pexe xool naka lañuy ñuy jaayee seen ay marchandises nee ñu daal lu ñu rek nangu nag benn yoon rek ñu leen jëlee te fa nga xam ne euh, foofee la ñuy daanee seen doole seetlu gi ak jëmm mbay. mbedd mi ñu tuddee Alkaïda fi ci marché Petersen tàmbaliwaat na di dund. gannaaw bi fi maire bi amalee ab opération de déguerpissement jëlee fi marchand ambulant yi waaye ñoom ñi demoon ñëpp tàmbaliwaat nañu di lal bi la yoon nag fee lañu teg table di lal si suuf bàyyi tali bi mu féex. lal bi boo ko gisee nii taabal lañ doon teg mais soxla dépasse moo waral lal gi donte agent maire yi ñu ngi fiy jaar du ñuy ne jóg leen jóg leen mais bu ñu ñëwee nu jóg comme ay taabal lañ doon teg nag am na ramas nee na ñu ñu jóg bàyyi nañu tali bi bu baax ñu ngi nii lal di jaay. kenn sañul lal marchandise am yëpp ku mel ni bay sàmb moom tuuti la jël si ay marchandise teg di jaay leneen li mu nëbb feneen lal na si anam goo xam ne su ñu ba xër nit dafay daw yóbbu ay bagage am agent maire yi duñ ko mën a teg loxo yile commerçant xam nañu ni amuñu droit di lal si tali bi. waaw ñun xam na ni tali bi ñu nekk jaarul mais ñàkk pexe. lenn dong la ñu bëgg mooy ñu ubbi leen marché bi nga xam ne maire Alioune Ndoye ko tabax ne woon da leen koy jébbal. kon ñu ngi sàkk bu baax monsieur le maire Alioune Alioune Ndoye ubbil nu li nga xam ne nu dugg ci ngir suñuy bagage mën a sàmm loolu rek lañ amoon lu ñuy wax. fi ñu taxaw di wax sax la agent yi jógee fa li ñëwaat di leen yëkkati ku nekk di daw ut foo aw ndax ku ñu jàpp di nga ñàkk say bagage ba noppi di nga fay alamaan maire yi nanguwul yiy yàbbi ci mbir mi. kaaraange ñàkk yi nga xam ne rek gis nañ ko ci diwaanu Thiès Est ak itam ñàkk am nag leeraay wu doy nekkoon na lu ñu waxtaanee euh, ci diggante seen ak maire ak itam ñi nga xam ne ñoo di askan wa boobee nag ndaje mouvement bu Y'en a sàkk woon ko waxtaan nag bu baax diggante nag euh, ñi nga xam ne rek ñoom la dénk nag gox googee xool naka la ñuy def rek ba askan wi mën a nekk ci anam ko mucc ba itam nekk ci kaaraange loolu itam day wax ndoolu ci Ousmane Diagne wooyu maire wa ñu daal di sëq ak moom laaj tontu ñeel opération de désencombrement yi xam ne ñu ngi koy teg marchand ambulant yi. mooy wax rek Thiessois yi nekk commune bu Thiès que ni baax na comme ni ñu koy defee ñu tabax ay poste santé tabax ay salle de classe def ay aménagement paysagiste mais il faudrait aussi que cadre de vie bi ñu jëm ko préserver parce que ñi fi jël cadre ñëpp ci li ñu gën a appesantir mooy cadre de vie bi ñi nga xam anarchique di occuper espace public bi donc ñooñu il faut que nit ñi ñu wax ak ñoom pour que ñu libérer ko parce que lu ñu ko deful ñu serons obligés de d' utiliser d' autres pour jéem leen jëlee foofu parce que tamit cadre de vie dañ ko war a defar moom rafet. insécurité bi aussi abordé nañ ko fii wax ko je crois que insécurité moom du Thiès est rek Thiès gépp la te phénomène bi ko gën indi nag mooy phénomène u Jakarta yi jàpp naa ni loolu ñun anticiper woon nañ ci depuis 2013 doon nañ ko wax ni Jakarta yi bu ñu continuer Thiès dinañ jëm ba insécurité bi ni xewoon Kaolack moo jot na gouverneur euh, préfet ak ñëpp ñi nga xamante ni mooy ministres yi ñu taxaw ñu ànd ci jàpp ci pour que ce phénomène là ñu mën ko xeex mu mu jóge fi amul benn coppite ci nekkinu askan wi ak seen ay doxalin mbir bi nag di gën a tar bu sukkandikoo ci yéen ci kilifa yoo xam ne daanaka gis-gis googee lañ ci daal di am jàpp ne lu bare bare war nañ ko mën a joyante ci nekkinu askan wi yenn saay daal dañuy amal ay taxawaay yoo xam ne du loolee nag lañ leen war naka war a amle jàpp ne sax lu bare bare war nañ ko war a mën a woon ginnaaw daanaka def nag ay taxawaay yoo xam ne tax Sénégal ñu gën koo naw ci wàllum doxalin lu mel nag gis-gisu du Salbert ci jàngatug tay bi mentalité yi ak comportement sénégalais yi amul dara lu ci soppeeku fa mu nekkoon la nekk loole moom ñëpp a ko seetlu daanaka sax mun nañu ko gis ci fànn yu bëri ci dund bi mu nekk ci wàllum politique ba ci sax ni ñuy gérer entreprise publique yi ak privé yi politique dafa nekk loo xamante ne mbiru politiciens yi ku ne yaakaar na yaa gën a mus sa morom ñuy naxante boole ko jiital seen ay intérêt personnel nañ xool situation ba am assemblée doy na ci misaal réglement intérieur bi parlementaire yi ñoo ko soppi ginnaaw bi ñu supprimer poste premier ministre kon li yenu maanaam moo di ne bu dee dañoo indiwaat poste premier ministre mooy ñu laalaat règlement intérieur bu fekkee sax mënuñu ko soppar ñi yëpp député yi nag nangu rëq-rëq boobu nga xam ne dafay ñagasal seen image ñenn ñi sax daanaka jàpp ne dañu war a bàyyi loolu mu jàll ba premier ministre ñëw taxaw ak député yi muy débat politicien boo xam ne amul benn njëriñ diggante politiciens yi nekk ci kujje gi ak yi nekk ci pouvoir bi ci jamono jooju sénégalais yi nag di xaar conclusion maanaam jeexital yi nga xam ne moo juddoo ci ay réforme ak yeesalaat justice sa yenn député yi moom amuñu leen lu ñu gis lu dul di xiiroo ak a ŋaayoo ci assamble ba ñenn ñi jàpp na sax dañu war a sopparñuwaat constitution bi ba kenn du tas assemblée nationale. loolee di ay misaal yoo xamante ne dafay wane comportement politiciens yi fa mu ne woon ma fa ba léegi ku ne di tam sa morom dëmm ngir sa njëriñ si wàllum politique nañ jël wàllum entreprise yi nga xamante ne su nguur gi la ajo wala privé yi loolu moom mooy góom bi gën a doy waar Sénégal administration bi dañ ko daal di politiser ku ñëw bëgg a xëcc say mbokk wala ñi nga bokkal diiwaan wala ñi nga bokkal parti teg ko say wet jële fa ñeneen wala nga defal ñenn ay contrat de prestation yoo xam ne dafa jégg dayoo jub jubal jubbanti warul nekk slogan kese dafa war a nekk mentalité sénégalais yi di ko doxee di ko jëfee muy seen comportement bés bu ne changement mentalité ak comportement yi dafa doon loo xam ne lu jot la lu ñu war a def te nag ñi si war a jiito war ko jëfee bu ko defee ñeneen ñi mën see topp waaye loolee nag faw mu ànd ak audace maanaam fit ak ñeme ak am sañ-sañu def ko ngir mën a indiwaat fii ci Sénégal beneen citoyen boo xam ne dafa responsable xam li koy xaar ci coppite yi nga xamante ne war nañu ko indi ngir doxinu société bi bu ko defee Sénégal gën a mën a jëm kanam doon na leen ko junj sànq laataa ñu sóobu ci yaatal kii jàppale ne ci maison de la presse nit ku bees ka di Sambou Biagui ndiki tey daan na jot leng yi ci ko ma fu wutu ba mu jëlee kàddu nag ne dana def kéemtulaay kàttanam ba képp koo xam ne day yëngu ci wàllum tasum xibaar gis ci boppam waaye daal nee na lépp lu mu liggéey dina ko teg ci yoon. ñu nommé ko directeur général bu maison de la presse Babacar Touré ñaari ci ay bés si ginnaaw Sambou Biagui jël napp fonction ki wut Bara Ndiaye ci bopp kër gile daa dinay fësal. feuille de route am. les acteurs de la presse doivent se yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum presse yëpp maa ngi leen di wax ñu jël kër gi def ko mu nekk seenub kër. solennellement à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement. xaritam bi di Lissa Faye mi nga xam ne jël na kàddu ci turu patron de presse yu Sénégal di ko ñaax mu fexe ba dajale presse sénégalaise bi yépp ndax naka ci at yi mujj gis nañu ne presse bi dañoo xaajaloo. Sambou Sambou gi dina fexe ba dajalee ñi nga xam ni ñoo nekk ci métier bile def maison de la presse bërëb boo xam ni journalistes yi dinañ fi mën a tase di waxtaan di mën a traiter seen ay ndaxte nag loolu mooy njariñu maison de la presse. aller que en fait la maison de la presse c'était ça. fukki at ak juróom-benn ci ginnaaw itam Sambou Biagui mii moo wut woon Bara yi ci beneen poste moom moo jëlaatoon émission mi nga xam ne directeur général sortant bile. moo ko doon animé ca chaine de télévision Canal Info ba woon. am na yaqin ni ni daan animé émission de télé boobee ànd ko Pastef dana ko jiite maison de la presse bi de. Sambou Biagui di xamle nag moom yorinam bi dina ko teg ci jub jubal ak jubanti comme ni ko njiitu réew mi waxee. fas yéene naa wéyal liggéey bi nga xam ne moom laa fekk ci kër gi waaye itam fas yéene indi ay coppite def promotion li nga xam ne moo di excellence fas yéene itam lëkkaloo ak presse bi nga xam ne moo nekk ci réew mi ak bi nekk ci bitim réew. ngir relever défi yi nag directeur général bu bees bi di ñaax ndimbalu ka kat ya daal nay invité itam professionnel média yëpp ñu fexe ba maison de presse bi lee doon appel bërëb liggéey boo xam ne daañ fay liggéey waaye itam. dina ñu fa def dina ñu fa gëstu def ay recherche ba tey jii denduk Afrique daanaka am jafe-jafe ci rek jaww ji ak copte yi nga xam ne ñu ko cay nemmeeku donte liggéey wu am solo def nañ ko ca waaye terewul ba tey jii lu bare bare des ci liggéey ba tax na nag waa Enda énergie am ci liggéey wu am solo woo xam ne taxaw nañ ci. tontu si li jëm si changement climatique parce que du li nga xamante ne moom la nguur gi rek di def. ba li nga xamante ne ñu ngi koy def si gox yi war nañ ko war nañ ko xam euh, léegi jëlee si gox yi aussi li nga xamante ne moom la ñuy xaar si mbirum changement climatique euh, parce que demoon nañ conférence de partie bu mujjee mooy bi nekkoon euh, Dubaï léegi ñu ngi tàmbali beneen il faut que ñu xayma li ñu jot a li ñu am foofu lan lañ si jot def au niveau national balaa ñuy jëm ñuy jublu feneen donc loolu dafa bokk si xayma yi nga xamante ne moom la ñuy def ñu jàpp ne mbirum xaalis cest moyen yi nga xamante ne euh, communauté yi war nañ ko am pour jëflante ak euh, mbirum changement climatique war na taxaw donc loolu euh, pour ñu lu am importance la am na fonds bi nga xamante ne moom lañ si def muy fonds perte dommage donc si loolu dañoo jàpp ne comme fonds boobu dafay laaj urgence donc il faut que mu gën a accessible parce que li ñu jàngaat si li nga xamante ne moom lañ defoon fu si bu bu njëkk si mécanisme yi dafa jafe-jafe la mbokk yi jaaree fi buur jotaayu xibaar yi jaajëfal leen lu baax ci tawli bi ànd beek 7 ci kanam tuuti Mamadou Awa Ndiaye dina dalal ganam di ab Abdou Fouta Diakhoumpa jàngalekat ca ENA bu ci noppee nag dina jébal lengay Germaine Diouf di ko génn xibaar yi ci kàllaama nasaraan jaa ngeen jëf